journal bu suñu làmb la ñu koy daal di ubbee Boucar mu daal di ñëw ak ñun ci Ambroise Sarr di entraîneur national Boucar Ndour li mu wax rek mooy li ñëpp raay reconnaître que Reug Reug mystiquement il est solide waaw Père Ambroise Sarr ñu koy nuyu de passage rek moom la journal bi dalal tamit wone ko si xatam bu njëkk li muy xam rek mooy ko ne la moom Reug Reug est mystique solide wala wala est très mystique et très solide maanaam myst mystique daal ni nga ko mën a waxee rek maanaam am na gàllaaj loolu daal la Père Ambroise Sarr bëgg a si biir journal bi Reug Reug est pratiquement très yaakaar naa ne nekk na loo xamante ne ni bari na sax ñu ko reconnaître ci milieu làmb waaye leneen li nga xamante ne ni moom per Ambra wax na ko nee na kii di Sa Thiès doomi Double Less rëg-rëg bu caaroy Ama Baldé doomu Fallay ak booy Niang numéro 2 doomu Dégol mën nañoo wane seen ñambaarte ak seen xarañate ci wàllu MMA ci niveau mondial. mën nañu ko sax dominer loolu la père gis ñii nag buñ si sóoboo ku si mel ni Sa Thiès Ama Baldé ak Boy parce que Reug Reug moom Reug Reug sóobu na ba pare ñooñu moom buñ si sóobu woon tey mën nañ ci am mën nañ ci réussir parce que MMA nekk na loo xamante tey sport la sport de combat la sport bu métti la waaye nag bëri bi da ciy fenn lool lool lool lool tax na moom ñeent ñii mu lim moom moom père Ambroise am na kenn defu ci ci làmb lu yàgg ay xale lañu yoo xamante ne ni kàttan gi mu ngi fi macha allah te bu ñu ko gëmee rek mën nañ cee réussir biram ñi ngi agent ménager goro ci Modou Xarañ Lo le roi des arènes actuel mu yëkkati ay kàddoom ci combat royal bi war dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé nee na fi mu toll nii ñoom seen nopp dañ koy jël daal di koy teg ci gémminu lëpp promoteur Luc Nicolas maanaam moom rek lay déglu. waaw Omar fi toll nii moom Birame Gningue la journal bi bu wone rek moom tamit di nekk manager si ki nga xamante ne moo di le roi des moom Luc Nicolas li nga xamante xamante ne moom mooy sorti ak li nga xamante ne ni moom moo ko warale ak sénégalais yi parce que fi mu toll nii ñëpp a namm làmb ji ubbi ku ci nekk nekk ci sa liggéey ba tey ci suñu làmb mu daal di ñëw ak ñun ci programme bi nga xamante ne moom mooy xeex corona corona à Pikine ki ko jiite nag mooy Ama Baldé sëlu bu ndaw bi ginnaaw bi mu amee combat royal am na beneen combat boo xamante ne ni moom moo empêché combat royal bi am muy coronavirus fi mu toll nii nag moom mi ngi jël ay gel de main mi ngi jël ay masque mi ngi jël ay savon di ko maye pour ñi nga xamante ne ni ñoom ñooy ay nit yi nekk biir Pikine te lii nag dafa valable Boucar pour képp koo xamante ne nii du ma ne sax mbër nga mais képp koo xamante ne nii homme de parole nga képp koo xamante ne nii leader nga ci fi nga dëkk.